wala mu jox la ko. bàyyi ma encaissé jàngat bi lay doon léegi léegi ak doyen Abdoulaye Cissé. jërëjëf euh, defe naa ne tey euh, sëriñ bu mag bi moo koy euh, moo koy dalal. waaw sëriñu sëriñu sëriñ Modou Fall. wala Paa Euh, Serigne Plateau bi remplacé Serigne tey Serigne Dia nga xam te ni moom Cheikh Tidiane Diaw ñuy xëccoo wàllu Serigne bi <laughs> doyen doyen tey jàngat bi ñu war ko accès ci li nga xam te ni moo di euh, nemmeeku nañ ko presse bi yëpp génnee ko mu di euh, gouvernement bi nga xam te ni njiitu réew mi daa jël ndogal daal di leen di dindi dindi gum waaye liñ ci nemmeeku rek moo di gestion solitaire maanaam ci wàllu tubaab bi njiitu réew mi am ci ci ci yëf yi mooy di nga xam te ni rek mooy jël. Euh, ay ndogalu boppam xëy na du ci consulter euh, ñenn ñi war a du ci waxtaan euh, looloo war a doon jàngat bi ban gis-gis nga ci waaw xam nga fi nga tàmbalee sa kàddu sax ci kaf yoo xam ni danga nga toog place shérif xalif bi dañuy bañ mu doon isnogout isnogout mooy xalif à la place bi xalif xam nga boo ko indee ci débat bi nga xam ne moo posé wu tey dafay mel ni ci gis-gis bu gàtt après dinañ ci gën a xuus lii dox bi ñuy président Macky Sall faloo ak léegi ci li nekk ci opinion bi mooy euh, bu kenn yóotu bu kenn yërndu li nga xam ne nii moom la moom te yoon may ko ko ba fi 2024 te xamuñu bu ñu leesoo 2024 ban taxawaay la ciy am bu leen yërndu bu leen yërndu maanaam muut maa ngoot waaw romb na foofu sax bu mhm. koy fi mu nekkatul sax muut bu ñu njorte ni xalaat nga ko sax jarul sax nga koy wax balaa nga ko wax sax moom lu tegu sa kaw mais loolu li mu indi mooy daf ñuy delloo ci prestation de serment bu yàgg la xëy na bu président Abdoulaye Wade en 2000 bi alternance bu njëkk am ci biir te acte yu bëri ñu nekk ci biir ñu ngi fa woon le moment fort de son discours président Wade dafa newoon l'ère de l'exercice solitaire du pouvoir bi jàpp ni nguur kenn dootu ci wéetoo di ko doxal yow rek maanaam bañ a wekk ñi nga xam ne sax ñoom nga ci àndal di diisoo di waxtaan ñuy xam aussi lan ngay sax xami du question nag président moom moom décision mais xëy na baax na di waxtaan ak ay nit ci ay décision fii dafa am lu bëri lu fi jaar ci biir réew mi bi ci mujj bu symbolique mooy suppression poste premier ministre amul kenn ci acteur politique yi majorité surtout kenn ku la mën a wax lu tax président supprimé ko lu dul li ñu ci dégg rek lu gàtt <laughs> dama bëgg rapport direct loolu xam nga loolu vraiment wax bu gàtt la <laughs> loolu amul c'est-à-dire pour service public efficace soxlawul président président du wax citoyen quand wax a waxante dëgg yaa yaakaar nii rapport direct la war a doon entre président ak ses administrés loolu amul fenn Sénégal mënul réinventer aussi méthode de gouvernance boo xam ne nii amul fenn te taxul mu gën a efficace parce que président ci boppam moom mooy wax souvent ni bu yàggul rek damay jot plus de cinquante dossiers ci wàllu problème mu foncier. Hmm. mais waxul ñaata la ciy traité ci foncier voilà mais waxul ñaata la ciy traité loolu li tax muy demee noonu parce que finalement créé na rapport boobu direct entre moom ak ña xam ne ñoom lay administrer te bu boobaa li muy indi mooy ñàkk efficacité parce que. rapport yaa ngi accumulé aussi table am. a waxal. Hmm. bëgg maa wax ak jëwriñ bëgg maa wax a waxal loolu la yëkkati. won nit ñi bi ñuy am aussi mooy ñi président yebal ay ndaw ministre ñeneen amuñ benn pouvoir parce que président moo wone loolu. mais loolu day gënoon joxe bopp rot bi la amee. non sax loolu amul fenn amul ci benn réew mënuñu inventé loo xam ne amul fenn te loolu bu bu bu amul efficacité parce que nit soo ko déggee wóolu ko mu doxal ba fu mu mën a yem xëy na loolu mooy tax ñuy def léeg arbitrage ci ay wàllu budget arbitrage yi tax muy am souvent da ngay gis ñaari ministre seen i point de vue divergent parce que ku nekk bëgg ngaa doxal ci li nga xam ne nii moom lañ la dénk mën nga am logique boo xam ne nii ministre mën nga am ministre de l'environnement muy am euh, di défendre loo xam ne nii écologie la environnement la mu opposé wu ak logique économiste bu boobaa buñ ci demee dañuy laaj arbitrage mën nga projet boo xam ne nii am na ñoo xam ne dañu bëgg investir mais mu am loo xam ne daf koy yàq lu bëri ci wàllu environnement ak développement durable ministre mën nañu opposé wu parce que ku nekk li ko dénk loolu lay défendre bu boobaa loolu mooy indi arbitrage di am mais léegi kan mooy arbitre premier ministre amatul parce que nag tuddee ko ministre d'état secrétaire général la présidence ça ne veut pas dire premier ministre parce que président moo dugal loolu ci xelu nit ñi xoolal ba muy yebal premier ancien premier ministre nekk premier ministre pendant cinq ans ñu ko jege ñu yónni la nga expliquer sénégalais yi que ni post bi amul njëriñ parce que loolu la waxu mun ma man Boun Abdallah Dionne bi mu ñëwee jàkkaarloog sénégalais yi expliquer ni post bi njëriñ bi bariwul parce que gis nañ ni pour mu gën a gaaw ñu supprimer ko moo gën yaa xayti loo nekk cinq ans xëy na sax keneen lañu waroon yónni pour mu expliquer sénégalais yi ni poste bi amul njëriñ mais loolu ñàkk weg la ak ñàkk war ma ñu ñëw tey ci li nga xam ne nii moo xew démb moi je défie les acteurs politiques surtout majorité bi gam xëy na dina ci ñëw léegi ci kanam mais ba fi mu toll nii amul kenn ku lu a wax lan la président ñu jox lan la président ci li nga xam ne nii moom la bëgg a def. Mmh. est xam nga loolu tamit je pense que dafa mel ni lu bees moom dafa mel ni c'est le spécialiste du verrouillage moom suy formation gouvernement yi bi mu fi nekkee ba léegi su koy def. daanaka lépp day nëbbatu day jékki-jékki rek nga gis ni lii la contrairement Abdoulaye Wade sax ba mu fi nekkee nga xam ne da nga doon gis bale kii nii hmm. consulté nañ ma ba rajo yi di ko direct mais fii moom dangay ngay toog lépp sotti non verrouillage lu baax la si état buy dox cest la ñu fi ñuy waxee mooy moo ki naw leen am parce que loo gis am na ñoo ko war a waxtaanee waxtaanee wu ko ak ay nitam te ñoom ñu def service après vente bi après war ko hmm. défendre sur tous les plateaux mais li mooy li nga xam ne ni mooy propos grand place yi ba léegi buñ dellu si waatee bu premier ministre amul dara loo xam ne nii nit wax na la ko loo xam ne loo mën a teg baaraam la ci jàpp ni moo tax ñu supprimer ko gis nga tey dañoo toll ci situation boo xam ne président mooy consulté pour former un gouvernement ça n'existe nulle part. mais doyen. Hmm. li ñu laaj mooy est-ce que finalement président il a ses de confiance am na koo xamante ni si. mën naa sukkandiku moo xam ne kii akkan mu neex mu naqari muy taw muy naaj mën naa koo wóolu ak tamit lu muy ragal. waaw mais xam nga dafa ñaari logique contradictoire boo bëggee wóolu nit am nit say am na confiance da nga di wóolu ba pare mais boo wonee ni wóoluwuma kenn doyluwuma kenn parce que ñàkk doy ñàkk doyloo ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal aussi am na ci. mais bu boobaa yow da ngay wéet li nga xam ne nii moom nga nekk te da ngay dem ba mel ni ku paranoïa paranoïa mooy lu nit yëkkati rek nga yaakaar ni pexe bu ñaaw la maanaam ñaaw njort président Macky Sall na foofu tey lu nit yëkkati mu yaakaar ni pexe bu ñaaw la pexe bu ñaaw ci li nga xam ne nii moom moom la yéene te xey na waxu ko kenn aussi mais li fi nekk ci pénc mi diggante ak ay mais ak i kàngam yoo xam ne nii xëy na xel warul mën a xalaat ñuy défier président Macky Sall ci doxalinam ci bëgg place am loolu débat wu grand place mais am na ci ñoo xam ne ñu lañu tudd xel xalaatul xëy na ñu dugg ci logique ñu défier ko xëy na kay am na ñu yéene budul moom muy ñoom waaye nag comme moom waxul aussi boo toogee di xaar xëy na ñu yaakaar ni sax sàqami nga te loolu mooy problème bi moom moo layewul biir ak nag nag ñàkk a wet parce que doxalul doxalinu nawle. justement ak kuje gi nga xam ne jàngatee situation bi fi xew démb parce que souvent euh, gouvernement suñ koy dissoudre di nga di nit ñi dinañ ko yëg. bon c'est mm-hmm. vrai ñu ngi doon wax ay affaire remaniement mais démb. à l'issue euh, du conseil des ministres kenn xaarul woon ni su jeexee dañuy dissoudre gouvernement bi quand même tamit est-ce que du immigration bi cher coowal coowal bu baax ñu layal la biir ne ah loolu lañ ci am def conseil des ministres ba pare te noonu la demee def conseil des ministres ba pare président gërëm leen ne nag xëy na am na ñoo xam ne du ñu dellu suyaat waaye c' est l' exercice normal ah de gouvernement ak yooyu parce que à un moment donné dañuy defaat reprofilage ak yooyu ak yooyu ndaxteel la pour ñoom te tey xoolal gars yi mais ci lan lañu ñu nekk xoolal demande d' exécutif des affaires courantes xam nga ni tey ñi xëy. lijjanti ñu sa affaires courantes. Mhm. les affaires à venir la ñuy lijjanti ku xam euh, maamun wala leneen. yaa fa nga jëm xam nga ni moos fii ñaari fan yi affaire courante amul. affaire stagnante kay moo fi nekk ba président di wax kan moo fi toog dafay nekk cest à dafay doon kumpa goo xam ne baaxul ci moom moom li mu yéene mooy yor lépp doxal ko ci yéene mais loolu mënuloo ko def. boo dul layante biir ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal ñu xam sa direction gis nga souvent exemple bi gën a gàtt eh, affaire u député bi fi waxoon wax yu ñaaw yi fan yii parce que direction parce que indiqué direction ci teel ku jégi surtout ñu farak moom dem nañ dans tous les sens am na sax ñu jóg di ko défendre loolu li ko waral mooy li ñuy war a wax teel pour indiquer la direction defuñu ko ba finalement ku ji benn bokk yaakaar ak affaire def nañ ko mais loolu moo lay wan ni xëy na ñoom am na fu ñu doon déglu pour xam ndax kii war nañu ko jàppale ci ndigalu président de la république président affaire ou pas mhm. kumpa googu moo baaxul lu ñuy def dañu koy déglu parce que amul lu muy layante biir ak ñoom xoolal réunion yi nga xam ne ni président da ci participer mais ci ci ci benn wala affaire mais bu ñëwee souvent pour pour joxe ay directives la yéegle sax sëpp leen la parce que xam nañ li fay xew yëpp mais du réunion échange yoo xam ne nii ñëw wax ko seen soxla ñoom tamit. àndu nawle. non du mhm. nawloowu leen nawloowul ñu mu àndal. te loolu réalité ñu bañ ko ñu mu neex mu naqari loolu moo fi nekk. mais est mhm, maintenant moom mu yor. yor pouvoir bi xëy na ñi mu àndal aussi. boo ma jàpp ni loolu mooy seen sutura pour continuer nekk ak moom bon. ça c'est la responsable c'est la liberté de chacun. est-ce que tamit situation boobu xëy na yokkul le flou autour du troisième mandat ndax xëy na bu nekkee yow da nga ne euh, du ma toogaat. Hmm. xanaa da ngaa war a bëgg ñi nga xamante ni si ñoom ñoo la wër ngeen di ànd liggéey bi tey nga gis leen ñoom ñu am lu ñu bëgg di yóotu. ñu am ambition. mais gis nga ni tey ñi mu àndal ñemewuñu ci sax wax. Hmm. man je mets au défi xam naa ne fii suñu wóor na yàlla du sori ci mbiru troisième mandat bi et pourtant avant que le débat na sa pose bu ñu fi baaree ñu baaree bari bari ci référendum ba dina ñu non mandat mais ñi doon wax ni sax non mandat verrouillé nañu ko tey nangootu ñoo sori ci waxtaan woowu parce que kenn moo yor direction bi te xëy na layoowante biir ak ñoom mm-hmm. réew mi daan naa dégg ñu naan kenn ko pàccoo dañu koy pencoo waaye léegi defe naa dafa am koo xam daf koo wéetu. <laughs> ndax Ablaye ndax Ablaye Ablaye ndax benn bu laaj la rek. <laughs> damay bañ a wax wax waxu kii waxu foor mbasa mbasa laay bañ a wax. xam nga ban <laughs> bàyyi ma comme da bàyyi ma laaj ko ndax c'était le moment ndax ndax c'est moment. Ah, est na jël invité bi. Fall mbasa mbasa Fall Fall borom euh, foor tama doyen merci beaucoup euh,